waaw Anta Babacar da ngay laajte kan mooy Jomaay Jomaay a ngi mooy Jomaay bu baax bi da ngay laajte kan mooy Jomaay moo nekkaat nii da ngay tey instant kan mooy Ousmane Ousmane mooy nga xam ne tey instant kenn musuma ger te samay morom ya fay nekk am na ci bari ñoo xam ne instant ay millionnaire lañ ñii ay milliardaire lañ barki dem bu Basiru génn moo nekkaat nii feelu ko ne ko man tamit nekk naa fi pendant des années pendant 15 ans musuñ maa ger loolu ñoom ñaan ñii bi ñu ko waxee Sénégal ba tey amul kenn génn ak ñi may taxaw wax ko devant tous les quelqu'un te kenn du ko def te beneen affaire man question bi ma lay posé mooy suufum nengaleer bi nga xam ne sa baay moo tax waa nengaleer te ay samtoon trois ans mënuñoo bay te ñoom lenn lañu xam seeni maam lenn lañu xam muy bay dunde toog ci tool yi ñaq dunde ngeen xañ leen ko ki ko xañ mooy sa baay yow kon yarul nga xam ne carrément ñun jox nañ la benn respect bi mais respect boobu mérité woo ko. te yéen ñi nga xam ne yéen a fa taxawoon doon ay militant yéen a taxawoon naan tey suufu nengaleer bi nañ ko delloowaat nengaleer yéen a taxoon di ko wax man lu tax sénégalais gaaw a fàtte. lu tax sénégalais yi gaaw a fàtte man loolu moom a jaaxal ñu suñu carte ñoo ko moom te ñu benn adversaire politique la ñu am muy waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñu xam def nañ fi 12 ans pousuñu yéen a ñuy dégg anta yemal cuuc day xam lekkam cuuc. day xam lekkam te yéen ñi nga xam yéen ay béykat yi dëkkee Ndingler ak yéen ñi nga xam yéen a dëkkee côté Sine beeg Saalum beeg fépp xam leen nekk carrément Diomaye président am na benn programme boo xam ne pour yéen bës bu jotee ba mu jël pale benn jàpp leen nekk carrément yéen béykat yi ay roi ngeen di doon. jaar naa leen wax nag mais il ñu teg ko ci place am ak ñi nga xam ne ñoo koy topp di ko yuuxu di ko tàcc. salaam sama gars naa leen bëggee naa leen. Euh, dama bëgg a ñëw tuuti rek ci Anta Babacar Ngom dama seetaan benn vidéo am léegi muy kalaas joomaay ak Ousmane naan Diomaye Ousmane so Ousmane Diomaye Sonko Diomaye Diomaye Sonko Anta Babacar luy loolu luy loolu waaw ma am di wax daal bay xam ne ni. Naby Vision Anta Babacar mooy Anta Babacar <laughs> Sénégal nag daa neex Anta Babacar xanaa mu ne yow dañ laa ci biir rek. yëgoon ni sa papa moo dem nangu suufu ndengaleer jaay leen doole loolu da ko fàtte loolu bërki démb la di ak yeneen ak yeneen yeneen suuf yoo xam ne yéen yéen a ko dóor fii Sénégal jaay nit ñi doole nangu ko kuy jaay doole di laaj réew ñu noppi xam ne yow jaaykatu doole nga ñu noppi yërëm la ndax jigéen nga doon nga ne da ngay kaas Anta Babacar xoolaatal sa bopp nit du la may lépp nga jël lépp Ousmane Sonko du sa nawle nawloowu la sax comprendre nga ba yow ngay jéem wax ñun suñu toogee ni joomaay sonko sonkooy joomaay ñun daa am luñ ci yëg lu ci dagg sa xol xanaa da nga cee gisul sa bopp mais nag yéen waxal leen dese comme que nag waxal leen dese dem leen. Naby Vision. bis dina ñëw lépp dina leer xeex ngeen côté bu ne mënul ne da yaakaar a yaakaar ne nag dañ leen di tëjal Ousmane sonk ci kaso bi ngeen def seeni deal politique gaje ah su leen neexee ko ci leen neexee ba ko ci biir yàlla antuwul loolu te Ousmane Sonko mi ngay yéen ci terrain te bu soba yalla dina len duma duma yu leer nañ le 24 février inshallah allah jërëjëf. Sonko Sonko mooy Jomaay Jomaay moy Ousmane mais qui est Ousmane finalement mais vous êtes perturbé déjà ok c'est simple Ousmane Sonko c'est le futur premier ministre et Bassirou Diomaye Faye c'est le futur président est-ce que vous avez d'autres questions madame Assalamualaikum. Assalamualaikum ah, mbak ada bawa kerja wae. Nia, alai asyik. Ante kontan aja, ya. kontan aja. C'est la politik. Sisa avoir du cran. Li moy nak vraiment faire de la politique. Ante wi ma shi wupal yexo ko def. Ante élection yi ñent di def ba nga war a tiire ci kaw Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dafa yàgg ak du Ba ngeen bàyyi leen ci làngu politique gi ñuy buum di buum bi di def di laxas di làqarti wallaay Achim ba ngeen war tiire ci kaw Ousmane Sonko ak Diomaye moo yàgg wara dugg ci dëkk bi lëg mbóot xool fuñ sàccee fu ñu fenee xool luñ def lu njuuj njaaj yuñ def lépp ngeen génne ko teg sur la table yow depuis kañ ndeng leer yi boy bi nekk ci ci wax rek di la manqué de respect xale bu ndaw muy jamaay fay nga bàyyi ci dëkk bi ngay politique muy politique nga bëgg dara mu bëgg dara nga bàyyi mais cette fois ci nii ma gis nga génn serrer le point moi j'aime bien les femmes qui serrent le point je suis très très content de vous de dégg naa la nga ne kan mooy Ousmane finalement on s'est perdu ñun de ñu koy fi ñu jëm xam nañ ko bu baax a baax a baax damay ragal yow yaa mujj réer. Mhm. ndax Ousmane jamaay jamaay Ousmane am na fu mu yóbbu jamaay. <laughs> am na fu mu yóbbu jamaay daal yow kay lañ xamul sa ñàkk doon kenn gi doon Anta Babacar Ngom gi nga doon yow dong dong fu mu la yóbbu waaye jamaay moom doon gi mu doon Sonko xam nañ fu ko yóbbu de. <laughs> anta babakar ngom gana gi mo xaram rek yaay anta nak xamo sa bop nak xamo sa bop de sa kanam gi di melni dayu mbër xamo sa nak a ah nak da nga dem suqi sa pigeon yoy xoma ay pigeon la xooma demal nga suqi ko jëm ci yafal sa bop mo gën ci yow ngay aral non Sonko mom ku bëgg rek tuddu ko waaw kay yow fi mu ne <laughs> doo falu sa mbokk du falu noqul fële ngay duulaale noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu suñu mbokk patriote yi leen nuyu di leen ziar may wax président Macky Sall avant toute chose que dañu mus a voté si jàmm ak salaam ñu koy ñaan fii ba dimanche na fexe ba dëkk bi jàmm am fi ak dal

gis ni société bi dafa wara fay 1 milliard ay taxe nguru senegal état bi suko ousmane sonko auditer nako war nga fay 1 milliard kokul borom société bi day olbertiku wo amadou ba suko defé amadou ba da kay ñew fay loko 500 millions xaj bi ne ko legui jox ma 250 millions li ci dess ñu bayiko noonu la ko mel ni Amadou Ba doon def léegi ñoom usmaan sonkoo nag bis buñ ko yëgee ne waa ji fay lu mu waruloon a dañ ko ko bëgg a wàññil ñoom ñu si mel ni Ousmane Sonko Birame Souleye jóob ak ay ay ñoom Bassirou Joma Jomaay Faye ñooñu dañ doon taxaw ne ko noo day fay doo ko wàññil dafa war a fay ay taxes normales comme ñëpp loolu la Ousmane Sonko bëgg indi ay leeral képp koo xam ne yaa ngi war a jiite askan war nga leeral sa am-am si nan la toll. ñu mën a xam ndax niñ ko amee lew na wala lewul ndax niñ ko amee loo xam ne dagan na wala daganul ndax yow mën nañ la dénk alalu mbooloo mi askanu Sénégal moo tax ñuy wax ku mel ni Amadou Ba mu dafa war a dem def déclaration patrimoine boo leen ko fàttalikoo Macky Sall dafa bàyyi ba falu nañu am naa huit milliards en 2012 yoo xam ne ba léegi mënul firnde fan la ko jëlee. Naby Vision. moo tax nit da war a def sa déclaration patrimoine avant ngay falu avant élection yi loolu mooy yoon mais toog ba falu kenn mënatu si dara nga ne man am naa huit milliards sa leer na la ne la kenn mënul si dara comme li ñu si Macky Sall. Amadou Ba dafa war a dem déclaration patrimoine beneen bi maa ngi déglu ko si mel ni xalifa sàll ak Amadou Ba mii. naan woy franc CFA bi baax na gis ngeen yéen xale yi Sénégal yéen ndawu senegal lay wax si àdduna bi amul benn dëkk bu développé si xaalisu jàmbur mais euh, Algérie France da ko coloniser woon moneem la yor Tunisie France da ko coloniser woon moneem la yor ay Inde Angleterre dañ leen coloniser woon seen monnaie la ñu yor ay Pakistan Angleterre ñoo leen coloniser woon Japon bi Chine moo ko coloniser woon Japon moo coloniser woon Chine Chine moneem la yor gis ngeen africain tant que yéen a nga lu yomb doo leen si génn sa ñii ngeen di wax nii lu tax ñu naan leen ay monnaie CFA bi baax na ñoom ñii ñëpp am nañu ay château France du ñu wax lu naqari France sinon ñu feeñal seen am-am foofu. ndax français yi ñoo la gën a xam ne li ñu am lewul donc yéen jeunesse bi il faut ngeen yeewu gis ngeen monnaie CFA bii monnaie boo xam ni est ce que xam ngeen ma wax leen rek benn wax képp kuy sénégalais ñaar fukki dërëm yoo yor sa poos na nga xam ni juróom-ñetti dërëm yi nga moom fukk ak ñaari France moo ko moom pour garantir monnaie bi ak defar bi mu koy defar fukk ak ñaari la France di teg suñu or bi ñu yor yëpp ñu ngi ko dem dépôt ko si banque France pour me garantir ñu monnaie bo xamni ñun baaxul ci ñun bëgguñu ko am leen touti xel yéen lay waxal la jeunesse sénégalaise vous représentez 75% de la population sénégalaise chance bi ngeen am tay jii ba nit ñi ñew taxaw si internet bi di leen wax ngeen xam ñun amuñu ko woon dimanche ce sera un tournant très décisif pour l'avenir du Sénégal man ma leen wax li tay c'est le moment qu'on change les données de ce pays parce que bu baaxoon duñ ci gis ngeen xale ma man dama leen wax rek suñu mag ñii ngeen wax suñu maam yeeg suñu bóor yi fi nekkoon liggéeyuñu woon moo ñu indil coono yi ñuy dund nii xam luñ fi nekkoon xeex rayante seen biir jëndub jaay jaam jaayub njaam naan sàngara la suñu buur yi fi woon néew na si ñoom ñu si loon taxaw di jëflanteeg tubaab yi se gis ngeen encore une fois lu si bëri gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musul xeex ak waa askanam waa Màkka si ngir diine wa waa Màkka ñoo ko ñoo xatal mais yonent bi musul fa xeex ak kenn ne ko kaay tuub wala la Jaxu Ba lu mu wuti lu mu Ma Diakhou Ba lu mu doon wuti sin tudé ko jihad di xex ak sa askan pour da ngeen di par force wala maray len Omar fouti Tall lan la doon wuti kay ba mu jéré dalé falaise de Bandiagara di tudé ko jihad di xex ak askanam da ngeen di tuub wala maray len il faut que ñun ñu am touti intelligence yu yewu xamni gis ngeen suñu mag ñi fi nekkon ni lepp loo leen naqari tey ñoom ko tek gis ngeen tuba bi ngeen gis ni tey sen asken kom kom bi fi nekk ñoom liggéeyuñ ko sen mamati mamati mam ñoko ko dañu ñëw ra yeggale ñun suñuy mamati mam bàyyiwuñu ñu dara dara donc yeen ndawu Sénégal encore une fois l'avenir de ce pays est entre vos mains lool moy dëgg gis ngeen bo leen xolé candidat Benno Bokk yaakar Amadou Ba ñan ñoko dar Samba Mbay Bayar division ño xamni ba juddo ba niñu tollu ni musu ñoo liggey xey sol sen grand bu di wër wër yi di di di di la Samba Mbay bayan rek ñoo ko wër wër ay jabaram diko tag diko way ci radio yi yooyu dafa wara jeex ku fi fallu ñu tudde la lamb tudde la ay jang tudde la ay lu nekk ñu tudde ko suñu ministre ñuy jël alalu askan bi di len ko séddale ñom sen biir gis nga nak ñepp kep ko xamne ne buggoo lolu jeex ñoo ñoo contre tay Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye sa lol dafa wara jeex nit bo juddo da nga wara dem liggey daan sa doole ñak jëriñu rango ñu euh, doole di ci ray bur lol dafa wara jeex sa c'est le moment ku nekk da nga wara dem liggey bu ngone nga bo wacce nga am lo joxe dépense keur lo loo yoree sa njabot mais tok di nar di fen di jëw di jaxase di yàq xelu nit ñi di ko dundee ba xëy dee loolu gàcce la donc yéen la jeunesse sénégalaise dem leen ngeen jëli seen carte d'électeur ngeen xam ni ëllëgu Sénégal tey jii mi ngi ci seen loxo c'est le moment de changer les choses Samba Mbaye Mbayaan bi daf fi war a jeex nit ñi dañu war a dem liggéeyi Sénégal gis ngeen réew boo leen gis ci àdduna tey xool leen chemin de fer normalement tey ji waroon nañu am train buy jóge Dakar dem ba Ziguinchor Sénégal fépp train dafa waroon am loolu rek ay millions d'emplois la woon ndax dina am ñuy jaay billet dina am ñuy contrôleur dina am ñuy ñuy ñuy dawal train yi yooyu yëpp ay emploi la Sénégal tey Sénégal lu ndaw la waroon nañu am train bi muy dem dans toutes les régions mais xoolal train yi sax amatul benn dawatul lépp ñu fi liñ fi amoon sax as néew tubaab yi bàyyi woon ko fi sax ndax seen njëriñu bopp ñii bi ñu ñëwee yàq nañ ko donc objectif yi nekk suñu kanam dafa rëy li ñu war a atteindre dafa bëri de grâce dem leen ngeen jëli seen carte d'électeur ngeen voté dimanche def le bon choix wasalaam